ba jot na looy xaar rek ndekete bis ba jot na mat bi mat laa la illallaah mat ba ñëw na de hmm. waxati nga lu ëpp bii naga la dese woon hmm. say caprice naga xanaa mala yi sax dinañu ëmb juróomi weer mais it boo ko dëkkaleel la ko baal yàlla <laughs> las bi nag naka la dese woon kuy matu di nga sol lu nuroo hmm? ba jël sa kolu VIP sol say baa naan damay matu woo ko fi ba mu yegg si. yàlla tiif <laughs> bii nag mooy sommet bi nag. les baa nii la dese woon. nan ko woo muy koy woo. Ah. Ah. ne mat bi ñëw na. mat maa ngi mat maa ko dese woon. mère déet. mère mënoo dem bàyyi ma fekk faama. tëj ma ci néeg boole ma ak jasig bu xiif sax moom ma gënal li ma nekk. déet dama sonn mais kii ak état bi mu toll nii. nga bëgg dem bàyyi ma ak moom. waaw te sa soxna. ngay seenu ci ah, moom yaay yaa ngi xalaat ci moom beneen. macha allah xoolal yàlla na ñëw ak jàmm toog leen rek. ma ñëw ak sedd ba ci ak muy métti. déedéet ma réglé ak bi ba pare. déet xoolal rek lee lax moom ndax man fi mu ne déggatuma dama sonn kuy matu dana mel nii bu doon matu man dama koy sentir sama ndigg dina metti may ma ma dem dégg nga li sa yaay wax. matu taaw la yàlla tii. dégg nga sa yaay wax. Hmm? wax. Hmm. nee na boo boo boo nekkoon ci mat moom dana ko yëg kon leer na la ne yow yaay bël da rek di fi indi lu lu amul. Hmm. faama àndal ak dal. àndal ak dal. yow wuy ma àndal ak dal nit nit ëmb na fi juróom-ñeenti doom nit ëmb na fi juróom-ñetti doom juróom-ñaari doom te jëkkër ja amul benn problème benn problème jëkkër ja amul. yàlla tiif. kër bu puusal ma toog nga foog ni moom laa yow wala wala waxu ma ma jàll yow waxuma waxu xajal ma ma jàll xajal ma ma ñaaj wax li ma wax daf maa ñor yow faaw nga dem def li ma la wax ah, bul sàng faama bul sàng jugal faama bàyyi li ngay def munoon nelaw mënu maa nelaw deux heures du moo jot ñoo ñu ànd ci oto bi nga wëral ma màdd wala nga dem jëndali ma màdd yow yow heure bi xam nga ban heure a jot ban heure a jot deux du matin waaw dafa guddi deux heures mag mu bëgg dara du toog jaay mag mu bëgg dara mais mbedd bi kan mooy toog di jaay màdd ba deux heures du matin eh, jugal yow laay waxal jugal laa wax dani nga ko muy dof dof daan lan la nee na naa génn dem utali ko màdd wala ndoxu ko dibi mbasa laa bëgg dibi mbasa bu laa bëgg mbasa dibeem day am aw sa il faut ñu rax ci tuuti fois boo xam ne seeñaa la nekk xam nga li ma fois bi du ñor bu baax baax day baax dina ma may force dina ma may force doo xam ne nit ni la dara dara fa nekk ci xelam nga koy beref di ko beref d'accord dibi nga bëgg waaw ndax ñoom dina ko dibi la eh xamoo leen fi ma leen wax mbasa laa du ci mbasa foo yow fekk nga nu fi attaqué ñu ñu nangul la sa attaque ba mu doy nga surchargé ñu ñu nangul la surcharge ñu ngi dem di la doxali sa soxla nga ne dañuy topp yow léegi lan la nan àndandoo nga dégg li ñuy wax lépp ñëwaale rek nga déggaale lépp amul solo ñëwal lu mel ni jigéen warul ñëwal rek ñu waxaale rek li ñuy wax lépp ah. duñ ko dégg hmm. ñëwal yow mii de ëmbaaleel nga ma dan mii biiram bi di faax mu taxaw naan ma nga baax na mais appel vidéo moom neewoon naa ko deen am connexion foo tool déet déet déet man bu ma ci vidéo ta wuy ma faama kii dafa déconnecté. faama faama. waa toogal ma wax yow toogal ma wax yow. ma bu maas ñi dee mën a jàdd tëgg ngooy ngaana. faama jëndul dibi. faama yërëmal sa bopp faama kii li nga ko teg bés boo yeewee ko du ma mën a janox sa goro yi xanaa ma porté malaat porté malade ah ndu bay def. dama sañ def loolu. lan laay def. dan dina la jox nga xew man waxuma ko xew nan xool dan fan la dugg nan xool dan fan la nekk lii man naa ko dul accepté yaay lii mën na lakk sama doom imaginaire. waay yow da ngay wax ak man comme ku ma a yow yaay dinaa la fi indi de sa lëkk diis yi. ay kon nga andi fi ku baax. Ah, hmm. ku mën defante. ku diis ku ron ku bëgg xew. ma ne ku baax. waaw baax na. ku baax baax na ñëpp di woon man la ñuy wëddi. baax na. Mm, mm. hmm. eh. kew la. ndox li keew la. ndox lii ndox la ndox ci këy. sàngam. fi mu ne da jaxasoo ba xamoo li ngay wax. mère. dama koy wax sa yaay mère non dama koy wax sa yaay. bu fi tuuru waaw bu yaboo damay tuur damay damay yuuree ko ba jeex. bul tuuru de mère. jox ma keew gi. keew. gis nga ko gis nga ko mère keew la yow. kew la yor. kew tere naa ko kew ba tàyyi. moom def fee génnul di fan la jëlee kew. syndicat yoon nii eh? kiloog liibar kew. liivreur rek ko koy indil. mu denc ko néegam di toj di toj tojee di toj di toj tojee. mbete ku ne jam jaajo di tawax building. wax dëgg yàlla jàppale nga ma taxawu nga ma ci sama soxna si wax dëgg yàlla ah. maa la condition laa ko yóbboo de. Ah, nangu na dama ko conditionné ñu door a mën a ànd. nangu na condition yëpp. Ah, am problème ah kon toog fi. jërëjëf Fama baax na jox sa yaay kenn di fa di teel a tàllal loxo. am na paas leen foofu. waaw ah, waaw taxaw ma la rek. condition laa demee. condition laa la fi bàyyi. dan appel vidéo nee naa la nga am connexion bu doy tey chargé sa téléphone appel vidéo chaque 30 minutes. soo wàccee moom force fara force doole mbaam la loolu moom amul awma ci sens intermédiaire parce que ñooy ndogandoo ensemble. xoolal daal loolu day métti yaa xam xam xam déglu rek. non nangu naa nangu naa nangu naa la ci bu man nangu naa. condition yi mu teg nii man nangu naa. yow yan condition ngay nangu yan dama naa bu baax li nga wax. amul problème yow ànd ak am yu nekk sama xel wax naa la ko. am yu lu nekk sama xel day lakk sama doom ci. wuy ma déglu ma wax la. par kees nga ciy jënd. lu ne sa xel rek. yow woo ma wax ma. ndii rek new ak lu na sa xel. yow demal rek. bu la fi sa yaay baal bu la fi sa yaay baal. allez bonne route. rentrez bien. ah kay bu la neexee kay ma gunge la nañ dem.